ziar bu baax a baax di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ak fu ngeen mën a nekk rek si àddina bi tey nag ñu ngi biir arène nationale mais balaa ñoo sori nag faw ñu jaajëfal suñu lion yi ah suñu lion yi nga xam ne ñu ngi woon ci Qatar di xeex di xeex ba ñàkk li bon mooy ñakk a bokk waaye comme bokk nañ rek la père Max Mbargane noonu euh, rëbb ca la rek boo jàpp nit ku jàpp may la moom moo ci am dem ngeen ñëw ngeen génn ngeen ci génn boo xam ne nag metti na waaye nag loolu mooy sport kon nag félicitation mais di courage lañ leen di wax di ñaan yàlla yeneen échéances yi ñëw moo xam coupe d'Afrique loolu coupe du monde yàlla na ngeen ci qualifié waat mais ñu ngi leen di jaaramal bu baax a baax a baax waaye nag tamit dañuy ñëw ci suñu cosaanu réew muy lamb ji lamb ji nag buñ ko waxee mooy li nu moom suñu sport national ñu ngi fii biir arène nationale ak kan Diender production ànd ak Gora Ndoye mu di ko gunge mu mel ni ki nag Diender production daa taxawal combat boo xam ne Boucar ah combat biir combat yi li ma si gën a neex mooy Diender boo nee sa xel day dem ci lébu ndooy maali maram ndooy boo nee caaroy sa xel day dem ci lébu ndooy mm-hmm. waaye boo demee kayaar tamit saxel day dem ci lébu ndax man maa dem kayaar mhm. yandu fa bañ may ma jën kon boo bëggee dégg-dëgg lam bi ñetti lébu la mhm. xaw ma nag kan ma leen di tàqale <laughs> yàlla na ko séeréer arbitré kon bu bés baax mu mel ni kon ame dem moo nekk suñu gos ki nga xam ne moom moo di jamtéri nekk suñu droite mhm. muy ñaari mbër yoo xam ne nag ku ci ne ci ndam nga fi jógee bi ngay mujjee fii ki kera dafa dóor fi gabasing mu daanu waaye ki mook jet li dañoo bëre bay naaw mu daan ko jëli bu rëy kii nag daan nekkoon mbër mu jafe wutal adversaire moom jamtéri waaye bokkar boo bëggee dégg-dëgg daal ah yàlla dogal na ni tey moom adversaire am na ko jàmm kon ñu jox ko mu nuyoo acca jàmm ñu ngi lay ziare waaw santaat Serigne Touba rek mm-hmm. di ziar ñi fi nekk ñëpp mm-hmm. euh, di ziar promoteur bi mm-hmm. di ziar sama adversaire Ahmed di nuyu sunu kilifa yi fi nekk yëpp bàyyiwuñ kenn di nuyu presse bi fi ñëw yëpp tamit deen baax a baax a que bu lu ñoom na ne làmb du dem te làmb ñëpp presse yëpp en ligne bi bu dul ñoom làmb du dem parce que ñoom ñooy tax làmb jar ñooy tax lamb àgg fu mu war a fu mu war a àgg. kon ñu leen ñu leen remercier bu baax a baax a baax. Mhm. di di bëggee sama gaay yi ma fi àndal ku ci mel ni sama sama gaay yi booy daaba. Mhm. Oulu ak mafia bi ñëwul yëpp ñu ngi bëggee daal kullu supporters yi yëpp daal yëpp yëpp yëpp. Mhm. waaw ñu ngi bëggee ñëpp daal. di bëggee waa jëndër gi yëpp. waaw di leen wax daal seen doom am na combat ko am na solo am Boucar ñu dem ci amet Ahmed puusil nii tuuti. voilà wala Boucar ñëw na ba tey mën na nekk. Ahmed lay waa delloo ziar waaw dama wax alhamdulilah gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi mhm. di gërëm suma ñaari waajur mhm. di ñaanal suma yaay suma sëriñ yal na yàlla guddal fanam sam pap fa mu tëdd yal na gënal fi mu jógee vraiment di am mbégte ah mhm. waaw di nuyu suma adversaire champion bi vraiment ndaanaan la te man dama bëgg di bëree ak champion. vraiment di nuyu assistance bi xam nga comme ni nga ko waxee presse en ligne bi ñëpp maa leen di ziar. di nuyu promoteur bi comme ni nga ko waxee man damay bëgg lii quoi gox. nga am ku xamante ni xam nga ñëw. waaw volontaire pour nekk promoteur pour jàppale ay ay nga xam te ni mooy liteur yi nekk si goxam. waaw man moom loolu am naa si fierté lool. vraiment nii la daal affaire daal nan jàpp rek. gox bu ne daal bu ko mënee. na organiser génne ay mbërëm. vraiment kontaan naa lool. am na solo. mais Ameth li ma leen njëkk laaj defe naa mooy li Sénégalais yëpp di laajte. lu tax Ameth dem jël lu tax nga jël jam tiir ndax mbër moo xam ne gars yu bëri dañ ne gars yi ñu mu ñoo lekk avance am. yow nga am audace bu toll nii ne nañ ma jox avance lan moo la yóbbee loolu. no champion la xam nga jàmm man bëgguma nit ko am te ni day toog ñu ñu koy bañ a jël wala xam nga ñu ko fiy teegi pour lan ñun ñëpp ay doomu aadama lan ay nit lan xam nga affaire bi sport la kaf forêt la quoi xam nga ku gagné Sénégal moo gagné man noonu laa ko jàppee su ma ko daanee na xam ne moom moo daan man bu ma daanee ma xam ne moo man it maa daan. c'est la mm. loi des mm. kon donc champion la moo tax ma jël ko mais dara. mais waxtaan wi ci gars yi suur ñu ñu bëri dañ ne waxtaan wi tax kenn a bëree a moom ay affaire am dara seddul quoi xam nga te ñun moom bëgguñu lu sedd. Mm. waaw ñun moom xam nga danoo bëgg bu ñu daan rek ñu daan ko xamante ni champion la. comme combat bi ma ko jëlee. nit romb na ma fii na ma da ngaa bëgg lu métti ma ne ko anyway amul problème. kon donc damaa jëlaat beneen boo xamante ni tamit ñëpp nee nan dafa metti mm-hmm. anyway amul problème. Mm. yeah. Euh, ba le jour yi incha allah. ba le jour yi. Uh-huh. sa mu daanu sax am na ci keroog foofu nga mujjee ak sa adversaire est-ce que bii bu ñuy dóor mu daanu la wala booy jaay bëre la daan ko. waaw bii moom incha allah naa xam nga comme te moom bërekat la bëgg naa bëreeg moom daan ko si bëre quoi. loolu daal laay sabab man ma sañoon ay dóor mu daanu sax du am si laam. man mm. ma sañoon ña daanaaka ñaan yàlla suñu borom ne bëgguma gaañ nit wala bëgg a dóor nit mu daanu noonoo man li ma bëgg mooy bëre ba nit ñi kontaan ma daan la ñu dem quoi loolu daal laay ñaan yàlla suñu borom yàlla nu yàlla may wér ak fekk ak tal ba le jour ji incha allah Boucar am na loo koy laaj en attendant ñu dem ci jàmm waaw li ma koy laaj rek mooy lenn la rek parce que dafa nekk mbër boo xamante ni Lamine yow Babacar dafa nekkoon ci élancé mhm. parce que Amet Dem bi muy bëreek ñoom ñoom jëtli ma juma jamono jooju noonu neexul doon affaire mhm. peut-être euh, gëj a bëre bi bokk waaye dama dama koy laaj rek kii mu jël nii mhm. kii nii gis nga ko ni muy xoolee nii nga xam ne <laughs> moom sax daa ñëw sax ñàngal parce que kattanaa ngi nii su ma jumul bëriwul jóge si victoire te mënut a bëree parce que li may li Adama Diouf naan mbëri fu nooy la ñuy xool lu tax Ameth Deme xoolul fu nooy pour maanaam tey carrière mën a dem ci kaw waaw waaw sant yàlla laay wax parce que mm. comme ni am na benn waxkat biy génn fan na damaa tardé mm. wax na dëgg mm-hmm. a mm-hmm. mbëri un million cinq cent laa mm-hmm. pourtant wax na dëgg un million cinq cent laay fayeeku ak ay deux millions mais nag la parce que sama wërsëg foofu la toll li ma fi def am na ñu def lu di fayeeku lu bëri mais loolu yeneen naa leen ka man taalibe sëñ Babacar Sylla taalibe Seex laa man aw ma dara xolu kiñaan mhm. sama xol dafa rafet parce que kuy jóg fajar mhm. di dem di wasifa ji mhm. kon amoo dara looy soxal moo gën yaa ngi dégg ngay défendre ay nit ci ay fen pour am di yóbbu sa njaboot moo gën ngay martaatu nit pour am pour yóbbu sa njaboot moo gën ngay fenal nit pour yóbbu sa njaboot pour loolu la may man nag du ma doxe noonu un million cinq cent yooyu ak tardement bii si lamb dama ne lépp yàlla suñu borom la. yaa ngi comprendre kon donc sant yàlla. li may faral di wax rek bés bu yàlla ne waaw gëm naa ne lépp dina changé te du ma mas a découragé dina am si mbëru mag yi dina am xaalis incha allah pourquoi nag ki fi ñëpp ki fi ñëpp bàyyi nga ne da koy jël bëri moom ñëpp ba ko fi non kii champion la ñëpp bàyyiwuñu ko fi ah, naanaan la mm-hmm. peut être comme li may faral di wax rek boo toogee quatre ans bëri woo mm-hmm. dama naan lépp suñu borom la yaa ngi comprendre xëy na nag yàlla da koy doog a dogal pour mu bëre. Hmm. kon donc man la am si quatre ans mi nga xam te ni toog na ko. ah dañuy dañuy ñaan yàlla bu jour ba ma daan ko mu amaat combat amaat xaalis. nga daan ko ma daan ko. da nga koo dàq bëre wala. non dàqu ma ko bëre fii ku yàlla jàppale rek moo fi ne kenn manul kenn. non côté bi côté boobu moom xam nañ ko mais boo ne dama moo tax il faut nga préciser. yow yaa ngi journaliste yi ku gën ay. loolu. moom non loolu moom waxuñu ci. moom moo gën a man kay a ah yow yow yaay nangu loolu man nag mbër muy bëre fii mbër muy takk fii ngem su ma la jàppee dama lay daan loolu laa gëm man noonu laay doxee quoi la bëggoon a dégg man moom apprenti laa ci gars yi ñoom Thier ñee ñooy sama ay des ñooy samay ancien Thier bee bu bu bu Dembélé gars yi dañ ko xamul waaye Bougar ko yàgg ci millier bi la ca XFM mook mm. Fatma Dia waaw ñoom samay ancien lañu mm. euh, jam mm. dégg nga sa waay de maanaam tardement ba ak lu mu ci man a xew bokkut moom ci ñi la fiy bàyyi te jël na la waaw sant Serigne Touba rek xam nga lu tax euh, li ma wax dama koy dëggal moo ma njëkk a bëre fuuf. la njëkk a bëre. fuuf bi mu bëre bi muy bëre. maa ngi koy seetaan mu doon ndaanaan trop ma nangul ko man. Hmm. ma nangul ko mbër. nekk na ci man tarbiwu làmb. Hmm. dem ma dem ba bëgg làmb ma ne jógeel ci man demal ci Ameth Dème. Hmm. li mu jàngal ma jëlee demal ci Ameth Dème li ma wax xam na ko bu dul dëgg nag du dëgg peut bàyyi taxaw. muy booy Idara Baas. ci man la ja la njëkk a takk ngeem maa ko njëkk a takk ngeem bu ma saa ñu écrit danaa ko taxawal ne bala bi mu demee dema dem ba bëgg làmb da ki te li muy bëgg nekkul fii dama kon demal ci Ameth Deme mm. kon tey kooku làmb dox ba boole ñu mm. kon xam naa ay am xam naa a baax bu doon daanoon du ma ko mm. nga def yow it wóor na man tooguma quatre ans ba réew ma de kon du jot laa fi ji kon jëlee léegi matul quatre la bëre mais tey da bëre di daan te doo am combat kon du ci ñëw dañ koy sant yàlla dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax di préféré di nuyu promoteur bi bu baax muy Abdoulaye Diakhaté ñu naa ko Jandeer production ñoo bokk tunu Jandeer donte bokkuñu dëkk tey mu jóg pour jàppale mbëru tunu Jandeer yi kon ñu ngi koy sant bu baax tam làmb ñëpp gox yëpp am am seen i promoteur kon moom bu duggee ci làmb yaakaar naa ne man ak yeneen mbër yu dëkk Jandeer ñoo tax mu dugg ci làmb kon ñu ngi koy remercier bu baax a baax ak kulli ku mu àndal ñu ngi koy béggee bu baax di wax na waa Diender gépp nañ ci jàpp parce que ñun li ñu manqué woon ba tax yoon bi yeex kon am nañ ko tey kon yàlla bu baax a baax a baax waaw mais am nga promoteur mais euh, jàmm faw nga ñëw càmmet mii yow koo xam ne yaa daan jël say booy da leen jox muy jàngal bëre nga jël avance am loolu du risque jam teere combat bu jël la amet mi du risque combat dama ne jam teere combat bu jël ñuy risque la bii nag man doonu risque ci man amet du risque ci yow barke Serigne Sall du risque ci man xamal tax du risque ci man boo amee Hmm. waaw xaw ma nag boo mu fa teg lay dégg kay xaw ma nag boo mu fa dafa am ñeneen ñu ma war a daan ñu dul amee dem waaw dafa waaw waaw parce que man turu jandeer ñoo ma ñoo ma du man rek man jamteer yi mooy bëre man jandeer ak kajoor ñoo ma seeq jandeer ak kajoor ñoo ma seeq ma juddoo kajoor yandee yaroo jandeer ñu yónni ma ma doon lébu ñu yónni ma yàkkamti ma hmm. du ma jógee turu jandeer pare di ragal dara ci làmb su ma demee ba xam ne fi ma war a àgg mënu fa damay bàyyi làmb na pasam bopp gaal yaa ngi fa machine bi machine yi nga dem joobi ma dem xooli waaw a leneen moom naa ci gëj waaye bu bëggee dégg dëgg ah. waaw man li may laajte mooy moom li mu wax léegi ci bëre bi comme nee na moom mooma dàq bëri numéro un gi waaw mooma dàq bëri ah waaw non loolu moom sénégalais yi ñuy siisee jamteer yaa ko dàq bëri mën nga ko wax moom avant combat mais suñu bëree ba sa lëndi ba waaw sénégal den binaat surno yi siisee waat yaa ak Ahmed mii maa ak Ahmed dem bu arbitre bi génnee seen diggante bu ngeen bëri ba bu dee samedi la combat bi tombeel dimanche nit ñi di leen wax ci jam la dimanche la combat bi to tombeel lundi nit ñi di presse dina wax ci jam teeri kon yorul bëri bu la jaaxal déggoo ma la wax déggoo li ma la xanaa maa ngi lay dégg de kulli kuy takk kuy takk ngeem dama naan boo naawul ñu bëre boo naawul ma arbitre bi maanaam nga bëgg la nga dem yoon dama naan bëri mënu ma cee jaaxal mbër yëpp yëpp barki Seydina Mohamed lamb nag mooy doxee nu ko neex ku nekk ak wërsëgam comme li amet dem wax dama koy nangu ku nekk ak wërsëgam mm-hmm. mais mm. na ku naawut mm, ku naawut yi bëri nag moom du wóor mm-hmm. euh, Amet Dem dafa jóge fii si kawo mu ne dafa naw Amet Dem ci bëre ñu xool tamit si taay Amet Dem moo xaw a sut parce loolu yëpp du la handicapé ci combat bi man nag man nag man man ngay wax man ngay di tudd taay man man kan moo ban ban dayoo laa bëriwul ci làmb Bara Ndiaye ka moo sut ci làmb. am njool la de am njool la. jàll li mu doon bëre moo am dem ko sut. ah moo am dem ko sut. xeex bi bëri la waaw moo am dem ko am am njool la. Mm-hmm. man man mbége si ñoom njoolu. man. Mm-hmm. man ban taay laay am ba. Mm-hmm. ay ñoom ànd lépp André Sarr ay ñoom booy ngaay dayo dayo bu dee mu wër moom man ban taay laay kër gi ci làmb. ban taay laay bëri kii làmb. Hmm? ban taay ban moom jaaxal ci làmb. xeex xeex. xeex bi du la non bu ngeen fëggante ay coup non Serigne dëgg yàlla kii nag wax dëgg man moom wax dëgg yàlla su ma rombee dox mm-hmm. lekkee sama avance moom ci luy la amul fi sedd ah. barke Serigne Saliou man noonu la ma am loolu naturel ci man nekkul loo xam ne dama koy fabriqué ci lam wala dara wala ma koy wax déedéet mm-hmm. naturel ci man même bu may entraînement noonu laay entraînement yi man noonu la mel sama lépp noonu la demee loo xeex daan ko ñibbi jandeer daan ko ñibbi jandeer waaw bëre ah. ak xeex parce que lamb ak bëre doo wax mais Bougar est-ce que doo leen bàyyi nii ñoom ñaar parce que dañoo xaw a sore quoi jege sil Ahmed taxaw leen nii voilà pour gars yi gis quoi parce que lii tamit da cee war a wax Ahmed waxtaan man ngeen waxtaan de du ngeen doxantaloo aca bu bëggee waaw aca waxtaan leen ah mais loo raxasoo sànq <laughs> bu la bu la neexee nga jox ma ndox ma <laughs> bu la neexee baal non bu ñu joxantewul loxo fi waaw comme ni mu ko waxee rek xam nga moom naanaan la comme ni may faral di waxee champion la am na wasu daje nañ Iba Mar yaa ngi fàttale ko bi ñuy waxtaan noonu bi nga naan da bëgg a bëre ak man non non non ma dëkku ma man maa ko doon balak naagaan kaa ma jola sama booy mais damaa xam ne champion la ma kaa yàgg a mu nekk ndaanaan bi muy bëre kees ba békaay di yuuxu noonu kon donc yàgg naa kaa suivre nee na maa ko mag maa ko jiitu a ah, xëy na noonu la demee peut peut-être maa ko ma déggoo li ma la wax dama ne la hmm. am na benn booy bu nekkoon ci man fu la jàngee bëre da daan dim géej kayaar dëkk ndar ñëw ci man di jàng bi bëggee làmb bëgg làmb bëgg làmb dama ko ne dama ko ne dama ci Amed Dem ci Amed Dem li may wax ni bu fekkee du dëgg na ni du dëgg peut baa ñu jàkkaaroo li mu wax wax loolu mu wax ah, booy la mooy booy hydrobas bu jógee ndar sama kër lay nekk yàgg na ma wax si moom ne moom bu demee kayaar si moom lay nekk euh. isin comme mais maa ngi doog a xam ne moo nekk demal amee dem. jàngale bëri donc est-ce que da doon espionné. non du question espionné non. du jamono bii kooku ñëw na si amee dem ba tarbiwu ba am ay combat victoire ay ah, dina xam non non non Idara Bass moom. Ah, mbër la mbër la bu ndaw. yaa may dégg xale la. ne ci amee dem taxul mu am ci wax ci amee dem parce que xam naa ni xam naa dem non ni ma bëggee la bëgg noonu la ko moom doon na ñaan yàlla bu ko ma taxaw loolu garaaw loolu du problème kooku kooku day tëdd na la maanaam la bëgg a wax ni la foofu la tax ma tudd ko dama la bëgg a wax ni moom amee yàgg naa ko ko xam bu baax da ko xam bu baax bu baax a baax effectivement làmb kay moom mbër la man mbër laa ñoo ngi normal ñu xamante ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen maa ngi taxaw di ko muy bëri ba pare may nangul ndaanaanam mm-hmm. mais nag loolu laa bëgg man tamit mm-hmm. maa bëgg su ma bëri amee dem pare am qualité yi ma jëlee ci moom am na solo waaw incha allah loolu kon Boucar jaajëf Ouzin maa ngi lay bëggee kon Boucar mën nañoo dugal promoteur bi borom jëndal production waaw waaw aca waaw Ahmed Ahmed dem dafa bëgg Gabbar Singh sut ko dóor ko mu daanu waaw kii bëri tonnerre tonnerre sut ko mu dóor ko mu daanu ñoom ñaar seen diggante gis nañu seen yoon dafa xaw a yéex amul daa xaw a yee dafa yéex. dafa yéex ñoom ñaar ñu boole leen lan lañ mën a xaar ci ñoom xeex est-ce que mën na am ci ñoom parce que kii dafa dóomu daanu kii daa dóor amee euh, euh, gabar mu daanu nee na kee na toneel. dóor bu daanu moom tante sens sens la rek mais amul kenn kuy jógee këram ne hmm. damay dóor mbër mu daanu ñëw dóor ko mu daanu yaa may dégg maanaam comme ni ñu koy waxee rek dog woo for la rek si làmb hmm. comprendre nga hmm. mais ñun li nu wóor mooy ñun lépp moo ngi si ñun muy bëre beek xeex beeg to te incha allah dinañ pare lépp ñu andi ko. jam de xeexkat la. waaw xeexkat la naanaal ko dem ba am këyit xeex kay. xam na ne xeexkat la. non xoolal wax rek mu ma gën doon daanaan foofu. doon daanaan moo tax mu jël ko maanaam combat bii nii pour wax ci pour wax ci neex. waaw am dem day layaam layaam di wax. waaw doon tax xam na ma nangul na ma doon tax xam naa ko nangul na ma. waaw mais asante benn. waaw fay ñu ñu xaalis pour ñëw di léwtoo mel ay ñaari ginaar yu bëri. yaa may dégg day neex day xumb day dagan ba ku ne ku am ndam ku yàlla may ndam nga jël ndam mais Serigne Touba amul morom dégg nga ma wax man gars yi bàyyi na ma fi mais li ma wax dama koy sant yàlla ndax def ndax yaa fuusu ma ban bàyyi ma fi dama def lu tax ñu bàyyi ma fi te ñi ma war a ñi ma waroon a bëri bëriwuñoo ak man ma toog muñ ko sant yàlla nag jàpp am preuve bu tax ñu jël ma preuve bu tax ñu jël ma preuve bu tax ñu xam ne damaa war a bëri ak ñoom non Serigne Touba moo ba jour ba. am na solo Ouzin jaajëf loolu leer na euh, pour le promoteur Diender production euh, avancé lu tuuti nii voilà euh, ñu ngi lay nuyu di la ziar mu mel ni kon gan la ci làmb moom tamit comme promoteur ah. Ah, parce que bu ñu gan ça veut dire que xëy na licence lay doog am mais sénégalais bu dul dund làmb moom amul ñu ciy profité di nuyu waa diaspora bi ñu ngi lay nuyu kilifa gi. waaw maa leen di nuyu di leen ziar bu baax. di leen ñaanal jàmm di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di féliciter suñu lions yi d'abord. Mm-hmm. di leen ñaanal lii ñu jóge yàlla na gën si ñoom. Mm-hmm. yàlla na yàlla wuutal leneen lu gën si ñoom di ñaanal Sénégal yëpp daal. Mm-hmm. képp kuy compétir ngir Sénégal yàlla yàlla defal ndam. yàlla na defe di yam tey yàlla na jeex ci Sénégal. ginnaaw bu loolu weesoo ñi ngi nuyu ñi ñu fi fekk yëpp assistance bi yëpp. di. nuyu presse en ligne bi yëpp. Mm-hmm. di leen ziyaara bu baax leen jaajëfal seen taxawaay rafet na. macha allah di nuyu mm-hmm. ñi mm-hmm. wër Jandeer production yëpp. ki si gën a tuuti ba ki si gën a mag. ñu ngi leen di ziyaara ñoom ñëpp. Jandeer production nag day dooraa ñëw ci làmb nekk ci gan. ñuy président des jeunes amateurs góorandoo yi. Mm-hmm. moo ñu tete ci làmb ba indi ñu fii ñu ak si tey. macha allah may ñu ñu ñëw mm-hmm. opportunité ñu ñëw. Mm-hmm. dagg licence pour ñëw. jàppale mbër yi nga xam ni ñoo nekk tund jandeer ak bépp mbër bu nekk senegal bépp mbër bu nekk Sénégal. ñu ngi lay talal loxo bépp autorité bu nekk Sénégal ñu ngi lay talal loxo. bépp presse bu nekk Sénégal ñu ngi lay talal loxo képp koo xam ne daal mun xalaat nañ ni. mun ngaa dooleel lamb mun ngaa dooleel Sénégal ñu ngi lay talal loxo pour nga jàppale Diender Séné Diender production. Mm-hmm. Euh, particulièrement nag tund Diender. ñu ngi ñu ngi woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw euh, di woo maire Alassane Ndoye di woo maireu Kayar Gass Ndoye di woo autorités yi nekk Kayar yëpp du ma mën a wax ba pare nag te nuyuwuma suma waa dëkk mooy waa kër Abdou Ndoye Euh, Sénégal dund Sénégal daanaka Kayar moo ko yor muy kër Abdou Ndoye boo fa ñëwee wàllu lëjum lépp luy lëjum boo ñëwee kër Abdou Ndoye da nga koy am si lu yomb mun naa wax ni majorité Sénégal kër Abdou Ndoye la ñuy jëlee lëjum boo àggee Kayar tefes tamit majorité Sénégal fa la ñuy jëlee jën kon Sénégal autorité yi fi nekk yu mag yi fi nekk war nañu gestu tund Jandeer ak Kayar ak kër Abdou Ndoye mais léegi waaw léegi ñu ñëw ak yow ci làmb ji parce que li ñuy mm-hmm. laaj mooy mm-hmm. combat bi noo def ba décroché est-ce que yomb naa décroché parce que lii bi combat bu mag la waaw combat la de décroché ko woon yombul mm-hmm. jéem nañ lu ne waaye dinañ ci sant ñu suñu ginnaaw yëpp waaye dinañ ci beral cantu góorandoo yi waaw parce que li si ëpp moom la parce que ñun dañuy dooraa ñëw si làmb moo ñu gën a maîtriser làmb Diender production day dooraa agsi waaye dañoo bootu ci ginnaawam pour mu xamal ñu yoon bi mun nañ wax ni moom moo décroché Ameth Dème ñun ñu décroché Diam Terry ndax Diam Terry suñu dëkkandoo la ñoo bokk dëkk bokkuñu dëkk même waaye sor soryoowuñu ay dëkk kon ñoo décroché ndoo làmb ji waaye moom dañ ko si beral cant lii bu amee tey moom am na si part de responsabilité di si sant tamit staffu Jandeer production bi yëpp parce que ñoom ñëpp ku nekk dox na ci wax na ci ku nekk indi na ci xelam ak xalaatam ba lii mun a sotti tey ah di ñaanal ñëpp jàmm rek Jandeer production ñu ngi wax daal Sénégal Jandeer production agsi na si géew làmb di tàllal loxo ñëpp nag di wax ni xamuñu dara munaguñu dara waaye bëgg na ñëpp jàppale ñu képp kuy promoteur ñu ngi lay talal loxo képp kuy amateuru làmb képp kuy dund ci làmb rek ñu ngi lay taalal loxo di sant nag ñu àndal ñii sama ginnaaw nii ànd ak man jógee kër Abdou Ndoye côté Kayar ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax munuñu lim bu ñu limee juum di wax ni làmb ji nag ñaari champion yi dañ koo raay raayal dañoo waroon wax tey bu tàng il faut ñu ñu ñu jafal pour pour affaire bi am ampleur xam nga ñu ñu relancer ko quoi parce que Diender Production bëgg na maanaam relancé wu buy génn tey sortem mm-hmm. bëgg na mu nekk sorti boo xam ne day marqué Sénégal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal waa kër Abdou Ndoye di ñaanal waa Kayar di ñaanal waa Tundu Jandeer yëpp di ñaanal suma famille bopp njaxateen ñu ngi leen di ñaanal bu baax mm-hmm. di ñaanal ñëpp Sénégal yëpp ñu ngeen di ñaanal jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm